léegi ñu jàll ci météo avec la Sambène Oumy Oumy maa ngi lay nuyu mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi ci jàmm ju bari soxna Naata macha allah. bonjour à la team et puis mbokki téléspectateurs yi nuyu naa leen et bon début de journée à tout le monde donc pour la tendance météo du jour donc gis ngeen ko asamaan si depuis démb dafa euh, dafa niis carrément euh, c'est une atmosphère boo xamante ne day mel ni day waaj a taw mais bon. Euh, tawu ëgg yi lay doon bi yoon euh, saison des pluies bi dem na elles sont les bien allées mais on a des risques ouais, de de pluie qui arrive fu mel ni Matam tey wala même fu mel ni Saint-Louis également et puis am na niir yoo xamante ne ñu ngi dugg si fi mu toll ni nii euh, ñu ngi formé wu principalement si euh, si géej gi donc euh, ça peut progresser sur la façade atlantique ci matinée bi donc c'est une une xibaar boo xamante ne la euh, dañ koy observer fii ak ci kanam tuuti sinon li si des rek couverture nuageuse sur l'ensemble du territoire national accompagnée de légères Euh, particules de poussière yoo xamante ne ñu ngi jóge ci bët gànnaar ba tew ça s'installe euh, au nord-est du pays au niveau des températures moom ñu ngi tàmbale 22 degrés à Ziguinchor 22 euh, degrés dinañ ko am ci Saint-Louis également 25 boori Dakar 26 à Kaffrine température maximale 25 également ci penku réew mi Matam ak Tambacounda on attend la même température sur ces zones au niveau de l'après-midi bu ñu jàngee carte bi ensemble toujours dafa tàng tàngaay bu takku ci digg réew mi jëm penku principalement 40 degrés euh, à Kaffrine 40 degrés à Matam sinon li des ci gox-goxaan yi si des autour euh, la température en train de chuter légèrement 31 degrés à Dakar minimal bi 36 à Saint-Louis Ziguinchor euh, également 36 degrés 37 boori Diourbel wala fu mel ni Kaolack également niir yaa ngi fi nuage dense niir yu xaw a Euh, takku takkuwee yu fàttali lu takku la ñuy am sur la moitié ouest du pays et puis même sur le sud également fu mel ni Matam Tambacounda Kédougou fa la jant bi nar a gën a fësee euh, également puisqu'il y a moins de nuages sur euh, sur cette partie là mu ngi noonu ci tënk rek au niveau de cette journée comme démb rek lañuy continuer asamaan soo xamante ni dafa nice euh, fraîcheur nocturne et matinal euh, principalement ci journée bi moom sent un peu plus la chaleur parce que bon day taux d'humidité bi euh, bien évidemment dafay euh, dafay augmenter mi ngi noonu ñu dem géej soxna naata 15h58 marée haute marée basse 9h34 ci kanam tuuti et puis en suivant la chronologie c'est pour 21h42 euh, fii ak ngoon ci au large de nos côtes en tout cas Euh, des fortes mm-hmm. euh, de vent donc xibaar bu ñuy observer la tamit y a pas mal ci euh, bésu tey ñiy dem géej rek ngen fagaroo gilet de sauvetage bi fi mu toll nii ak le GPS et toute la compagnie qui va avec pour seen kaaraange mu ngi noonu lever du soleil 7h14 le coucher du soleil aura lieu à 18h36 incha allah soxna naata. bu ci hmm. kanamee ma ñëw tënkal leen ko. Hmm. en fin d' émission à tout à l'heure incha allah merci beaucoup Miss Samb ba ci kanam ci météo bi en express alors tout de suite destination Sénégal.